di sant sunu ñaari wayjur di sant ñëpp di nuyu ñëpp di woote tamit ci programme bi nga xamante ni mooy tàkkusaanu Seydina Muhammad bi nga xamante ni mooy sunu deuxième édition ñu koy def ci Grand Thiès ci ginnaaw jàkkay murit ah euh, tàkkusaanu Seydina Muhammad bi nag ñi ngi ci woo ñëpp ci lañuy solal Muhammad yi ndaw yi ay yére di ko def chaque année di ci woo waa Grand Thiès di ci woo waa Cité di ci woo askan wi yëpp askanu Thiès yëpp guy sombel bàyyiwuma kenn waaw tàkkusaan bi nag ni muy déroulé mooy di conférencier bi Pape Samba Diop moo koy conférence tagg Seydina Muhammad lañ koy def ba mu jeex parce que loor kese moom moo ñu ñor ah Oustaz Mass mi ngi ci biir ci organisation bi tamit bépp nabien Thiès tamit maa ngi lay woo ci tàkkusaan bi waaw noonu daal laa bëgg tàkkusaan bi déroulé ko programme bi ni muy déroulé Mohamed mooy euh, quinze heures la ñu bëgg programme bi tàmbali su tàmbalee ah ñu def conférencier bi tagg Seydina Mohamed parce que loolu kese moom moo ñu jóg tax a jóg bu paree bu taggee Seydina Mohamed ba pare ah ñu woo turandoo Mouhamed yi ku ci nekk ñu jox la yére lu ëpp 60 personnes dinañ ko fa jox yére Mouhamed. fa tabaar fa kàlla damay sant yàlla bu baax Mouhamed su ma neelee la idée boobu man am na ñeent Mouhamed yoo xamante ni man maa leen uuf ñu tudd leen Mouhamed sama xol bi sedd loolu ci loolu man maa leen uuf ñu tudd leen bi sama xol bi seddee ci loolu ti set laa commencé di leen ko jox. yàlla dogal bi ma leen joxee t après ma commencé di leen jox dix mille ci koor après nag ah yàlla tamit suturaal ma yokk ma may jënd ay yére di leen ko jox Mohamed idée boobu noonu lay ñëwee ba tey may sant yàlla tamit mun a solal cinquante Mohamed wala lu ko ëpp waaw Mohamed damay sant yàlla ci sama poos lay jóge ak samay poche yi doom lu ci ëpp sax samay poosi doom lay jógee parce que wax dëgg yàlla ñoom it lu ma bëgg lu nekk bëgg nañ ko lu ma taxaw tamit na leen jox ma bu doon dañ koy dajale ba atit dinañ ma ko jox ci kàttanu yàlla may ñaan yàlla yal na leen yàlla yokk fulal leen ci bijaahi Seydina Muhammad xam nga yëfi seydinaa Muhammad moom wallahi du tuuti tey fii ma la ko waxee ñi nga gën a puus ci programme bi mooy Oustaz Mass Fall oustaz Pape Samba ñoo ma ci gën a puus parce que nee na ma yëfi Mouhamed dara du ci tuut tey oustaz Mass Fall dafa jël engagement ne bépp soni lépp loo xamante ne matériel la bu ñuy def ci bës boobu man mii man maa koy def ah ma di ko ci sant tamit di ko ci gërëm ah sama benn jabar di sama bàjjani doom tamit ñëw tamit volontaire ngir Seydina Mouhamad na ma lii 16 lépp man mii man maa koy def mi ngi nii toog ci gannaaw def adiyee ad nee na mu def adiyee Seydina Muhammad kon loolu rek Muhammad sant yàlla laay def sant yàlla bu baax laay def waaw ni ñi daal wax dëgg yàlla ñi ngi ñëw bëgg a barkeelu wallahi Muhammad ça m'a fait beaucoup plaisir wallahi Muhammad dama kontaan ci loolu dama kontaan ñooñu bi ñu indee liste bi dama ne leen teg leen liste bi yàlla baax na mais liste bi may jël cinquante yi ñu ngi nii tege ba pare léegi tegal leen ma liste bi ci kàttanu yàlla ak baax incha allahu rek boo leen ci xajee dinañ ci dugg te maa ngi ñaan yàlla balaa bés ba ñoom ñëpp ma jël leen ci kàttanu yàlla Mohamed. man social euh, euh, dafa yàgg ci man man ku ma xam social nga ma xamee Mohamed bi nga xamante ni sax ah, macha allah dara daan naa dem yor leket di sos di majjaalal nit pour jëndal ko ordinance li may wax ni leer na ñëpp. daan naa defit incha allah xam nga pour rek nit ki ah, bépp jafe-jafe-jafe bu mu am ma taxaw ci ah ñi ma wër tamit ah, muy autorité yi wax dëgg yàlla képp ki nga xamante ni ñëw na dugal ci loxoom kooku dama koy sant di ko gërëm waaye wax dëgg yàlla ba fii ma lay waxee ne ah gisaguma kenn ku ci dugal loxoom waaye maa ngi sant yàlla waaw ku ci mën dugal loxoom nag ngir jëmmi Seydina Muhammad kooku yàlla moom moo lay fayal boppam sunu borom moo lay fayal boppam waaye nag ah nii daal ma commencé yàlla na ma yàlla yokk Mouhamed yaa ngi dégg ba li ma la waxoon rek ba may solal cent wala cent cinquante ci kattanu yàlla. sama mag di sama xarit di di sama lépp kooku ak lu mu munti doon sama mag la muy Daha sama magu bopp la mu bëggal ma bopp boppam lu ma mënti def. su ma ko waxee day génnee poosam ñëw dimbale ma ak lu mu munti doon parce que sama magu bopp la moo ma bëgg grand parti la bokk waaye moom ci lu grand parti googu mu bokk taxul mu jàpp ma didit daf ma bëggal boppam tey laa ko mu jeewoo mu xaw a jagadi man ko dama la doon seet di la jaale parce que magam dafa gaañu ak doomam biñ ko joxoon mais tey dani ma kinne wallaahi bu ma doon suux sax yow foo taxaw dinaa fa taxaw loolu nag moom boppam la ma bëggal te yàlla rek tax te lépp lu ma lii mu jàpp ci yàlla na ko yàlla dooleel Kanté waaw ah ñi ma wër nag moom wax dëgg yàlla benn politicien ah dew ma fa taxaw da ah, ah, parce que Mouhamed euh, dew ma fa taxaw wax la demandé la waaw wax dëgg yàlla ah am na ki nga xamante ni nag wax dëgg yàlla euh, moom moo ma gisal boppam na ma bés bi bu ñëwee nag ma ko wax Euh, muy euh, rakk Ousmane Sarr euh, daal di créer benn mouvement boo xamante ni ndaw du fooy dëgg la tudd waaw wax dëgg yàlla tamit yóbbul naa ko lettre waaw parce que damaa taseeg moom mu ne ma incha allah ndax maas ming may wax sa bés bi mais bu jotee rek nang ma ko wax kooku tamit wax naa ko mais à part kooku waxaguma ko kenn wax dëgg yàlla bés bi nag maa koy amal Grand Thiès boo ñëwee ba jàkkee Serigne Saliou Touré boo jàddee fi ñu defaree pajaas soo ñëwee da ngay jàkkaarloog bâche bi ci jàkka ju ndaw jooju foofu laa koy foofu laay defee bës bi waaw muy door ci diggante trois heures ak heure bu ko yàlla jeexalee waaw parce que amul àpp comme yëfi Seydina Muhammad la du tuut heure bu ko sunu borom jeexalee rek mu daal di jeex social lu am doole la te social tamit lu baax la ndax Mohamed am na nit ki foo xamante ni soo fa jaaree dinga xam social ku baax la ndax Mohamed nga fekk ku wérit te amul dara Mohamed nga dimbali ko te yàlla tax loolu sunu borom rek moom moo lay fay te nit Mohamed yor na ay milliards te dumbale te dumbale doomu aadama nit yor lu tuuti def social rek moo ko ñor may woo képp ki nga xamante ni yàlla baaxe na la te jox la dara ngay gëstu sa ginnaaw tamit di dimbale ko amul loolu defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal ndax Mohamed le bien perdu n'est euh, le bienfait n'est jamais perdu kon lépp lu waay def ci lu baax sa bopp nga ko defal ah di ñaan Thiès Dakar ak fépp fu waay nekk nañu xam ni dimbal rek dimbal rek moom ngay fekk fe dimbale nit te yàlla tax rek moom ngay fekk fa ngay tëddi ndax ku bakkan bi ñam dund dina ñam dee kon yàlla na yéex yàlla na ñu yàlla jàppale Mouhamed te may ñu xol ndax xaas dafa neex nga génne ko di ko jox nit di ko dimbale ku la ko defal rek kooku war nga koo sant war nga koo gërëm yàlla nañu yàlla dooleel Mouhamed yàlla yeggaleel ma lii sama mébét di ñaan nit ñi ñaanal ma ma eggaleeg sama sago parce que ñaan naa yàlla Mouhamed lii di ko continuer ba samay sëtër ñi ñu di ko def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam tey ku ci bëgg a jàpp te yàlla rek tax Mouhamed waaw man Grand Thiès laa dëkk maa ngi dëkk jàkkay murit kër gi jàkkaarloog jàkkay murit soo ñëwee foofu di ma fa fekk tamit soo wootee ci numéro bii ma lay wax muy sama numéro la muy 77 330 85 81 soo wootee di nga ma jot waaw ku ci bëgg a jàpp nag te yàlla rek tax ah wax dëgg yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp tamit di woo ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne muy samay mag samay rak samay xarit samay am di jàmm tamit di sant ñaan ñi toog ci sama wet muy maam Njaay Ñas ah yaa Faatu Mbeng kii moo jur sam samay doom samay maami doom la yàlla dafa dogal gis nga tey dafa oyof da cee yem rek daal di ñëw toog kon di ko sant di ko gërëm ñii aw ma seen fay ndax Mouhamed xëy na tey nga leen doog a gis mais programme bu ma munti am ku gestu danga leen seen sama wet kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla dooleel tamit yàlla na leen jàppale yàlla jàppale ci bijaahi Seydina Mouhamad Cees waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di woo di leen ñaax di leen wax ñu ñëw ci bés bi ndax bu si sang-sang yi ba si géeri la foofu ku fa ñëw mun naa mën ko barke rek moom ma la fay topp kon di leen woo tamit nañu ñëw ci bés bi dooleel ma gunge ma te yàlla rek tax ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ah di nuyu di sant sama yaay bu baax a baax a baax Mouhamed kooku aw ma fayam yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla dooleel yàlla na ko yàlla guddal fanam ndax Mouhamed kooku bu guddee fan wax dëgg yàlla Mouhamed nee nañ feccum liir bu neexee ndey jaatee ca mbagg mais moo ma téye moo ma dooleel moo ma jàppale Mouhamed tey su ma ko woowoon day ñëw fu ma dem fu ne boo bu ma gëstoo gis ko fa kon yàlla na ko yàlla dooleel ci kàttanam waaw ah di woo tamit samay mag macha allah fa tabar fa kàlla ñoom sant leen tamit Ana Diop Marème Diop sunu xalifa nday Diop di leen woo di sant samay jabar tamit macha allah fu ma taxaw ñu taxaw fa ah, di sant tamit oustaz Mass Fall bu baax a baax a baax a baax a baax oustaz Samba tamit di ko gërëm Duudu Fall bépp nabien bi nga xamante ni yaa ngi Cees te di xam kinne mu Sëriñ Babacar tamit ñooñu maa ngi leen sant di leen gërëm yàlla na leen yàlla jàppale sant waa Cees sant sama doom muy aw si macha allah si di sare moom wax dëgg yàlla macha allah sama doom la ñaxali témbali it di ko sant di ko gërëm sama xarit bu baax la bàyyi wu ma kenn parce que Mouhamed ne nañ ku lim juum waaw léegi nag di maase waa Grand Thiès ñoom lépp maa ngi leen di woo di leen sant di leen gërëm wasalaam allahu akbar bismillahi rrahmani rrahimi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam ولم يكن له كفوا أحد